وجهت yi ba tey rek ñu ngi leen ko xamee woon rek ci fi nga xam moom mooy exposition bi ci musée bi tey fu ñu dem rek ndaje murit bu am rek dana leen fa gis ñoom seen taxawaay ci laxasaay nga xam ne dañu ñëw tey fii di Dakar fekk fi ahlu café waaye ci njiital maam Fama mi nga xam ni donc mi ngi ci ànd ak soxna Ma Issa Mbacke ci liggéey bi nga xam ne nii mboolem daje mburit yëpp dañ leen fay gis kon nag tey euh, soxna si euh, juróomi fan yéen a ngi fi euh, ci liggéey bi ànd ak ñi nga xam moom mooy comité comité bi ci xam moom moo am fii tey mu doon lu yéeme moo ñu fi dajale tey ban jàngat nga def tey ci bés bi. alhamdulilah jërëjëfati borom Touba sëñ Mountakha Mbacke Khadim Rasoul ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool tibéer ñu ngi santaat yàlla di sant Soxna May sa Mbàkke ndax liggéey bii nuyu liggéey moo ñu ci yem liggéey bii ñuy liggéey dañ ko koo téyel fi rek fii ci Ndakaaru ndax daa nekk ci yeneen yitte ñu ciy sant yàlla ndax buñ ne euh, euh, bisub Serigne Touba journée du patrimoine Cheikh Ahmadou Bamba kuy murit ku ne war nga xam ni war teewaay war na fi nekk kuy mënul ku ne di nga xam ne boo fi ñëwee di nga fi fekk alxuraan di fi fekk xasida di nga fi fekk café Touba ndax ni ko soxna si waxee rek kafe gi bi bi sëñ bi ñibbi si ci géej gi café la indi kon fépp fu mu ndajem murit di nekk rek soxna si war na faa teew kafe gi war na faa teew ndax moo fi nekkal sëriñ bi ci kafe gi waaw ñu ngi sant yàlla rek di sant ñi nga xam ni ñoo taxawal bis bi sëñ Chérif Fantamadi ak ñoom sëñ Xaadim Ngom ak ñi mu ko àndal ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax ndax musée wane bagage sëriñ bi dafa jot ndax li feeñal photo bi booy xelu tuuti danga naan sëriñ bi bi ma ànd ak tubaab bi sunu borom dafa def ci xelu tubaab bi ni ko action bu mu def rek dee ko photo pour moom day photo di denc fekk denc lu ko boppam murit yi la ko dencal tubaab bi daa xamul li xew waaye bu xamul li xew du ko photo parce que déjà lii moo ñu permettre ñu gën a xam sëriñ bi ndax photo bi ñu daan gis ak photo bi ñu gis léegi sa c'est diamétralement opposé léegi mel na ni yaa ngi jàkkaarloog sëriñ bi muy julli nga jàkkaarloog sëriñ bi muy muy muy muy teg xeer action yëpp muy def daal li li nit ñiy def mu koy def nga jàkkaar nga xam ne sëriñ bi kon donc toogul woon rek di jàpp ak julli mais mi ngi doon def ay action waaw boo ko xool photo bi dafa yéeme sax ak sëñ Tuubaa sa yaram day daw. yéen waa Dakar euh, tey dafa mel ne tamit dañu gën a valoriser fi nga xam ne moom mooy musée bi ngeen dëkk ak moom euh, juróomi fan ngeen denc dëkk ak bagage yi sëñ waaw xam nga musée bi ñun man sax mosuma fee dugg romb naa ko ay yoon yoon dëgg dugg naa grand théâtre ay yoon mais musée bi mosuñu fee dugg surtout murit yi pourtant ñëpp a ngi fi les grandes figures yëpp a ngi ci biir musée bi. mais lii déplacement bi ak mouvance bi nit ñi ni ñuy dugg di génn di xool di xool musul am sëriñ bee ko fi indi nit ñi dañu bëgg a découvrir kan mooy sëñ Touba xam nga booy déglu léeg-léeg sëñ Mountakha naan jéem leen a xam sëriñ bi donc à travers euh, lii dina gën a ñuy jàngat ci sëriñ bi <laughs> ila wali